mboolem murit yi déglu leen ma dee tuwaay bésab sëriñ bàmba ba mooy 18 safar mboolem murit yi déglu leen ma dee tuwaay bésab sëriñ bàmba ba mooy 18 safar 18 safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal 18 safar mi ku ne ci réew mi xam na ni moom mi rekk di màggal dix-huit safar mi ku am amuñ lu dul moom nañ farlu am jom te di ko waajal màggal gi lañ am amuñ lu dul moom